ok alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa ta'ala mi ñu dajalawaat ci ab néegam di fas yéene jël benn bind ci wàllu fiq di sukkandikoo téere bi nga xam ne mooy risaala bu ibnu abi zayd alqayrawaani ñu nekkoon ci buntu baabu jumalin min alfaraid muy ñeen fukkeelu bunt bi ñu jëloon ci it ay bind ba tey jii ñu ngi war a dal fi muy waxee ni wa xarama allahu subhanahu shurba alxamr su dee da ngaa yor mool bu xonq bi yaa ngi ci page cent quinze su dee da ngaa yor samaru daani xoolal page six cent soixante-huit ca cinquième ligne ba ca digg ba te mooy genn wàllu ligne rek mooy tee page ba jeex cinquième ligne ba ca digg ba da nga fekk mu naan wa xarama allah subhanahu shurba alxamr mi ngi noonu kon tey jii mooy ñetteelu fan ci li ñuy tuddee jumaada al axira wala jumaada saaniya sun maam yi daañ ko tuddee maamu koor muy tombeek fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier kon mi ngi noonu su dee bokk nañ ko gis borom téere bi day wax ne wa xarama allahu subhanahu shurba alxamr yàlla day araamal nañu naan sàngara qaliliha wa kasiriha la ca néew ak la ca bari wa sharaabul arab yowma izin naanuk arab ya ca jamono jooje sadiqu tamru da daan nekk tàndarma joo xam ne dañu ko njar foroxal ko wa bayyana rasulu alayhi salaam waaye yonent bi leeral ne anna kulla ma asqara ma askara lépp loo xam ne day màndal kasiruhu min al ashriba ci lu bari ca naan ya mooy boo ca naani lu bari màndi fa qaliluhu xaram naka noonu it boo ca naani tuuti lu xaram la wa kullu ma xaamara al aqal lépp loo xam ne dana muur xel fa askarahu mu daal di koy mandal min kulli sharabin fa huwa xamru ak naan gum mën a doon loolu sàngara la wa qaala rasulu alayhi salaam yonent ba wax na ba tey inna lazi xarama shurbaha ka nga xam ne moo araamal naan nga xarama bay aha moo araamal njaay ma mi ngi noonu mbokk bokk ne ci xéewalu yàlla gu ñu yàlla defal mooy mu araamal ci ñun sàngara ba nga xamee ni fa lillahi alhamdu ñu ëpp ci ñun musuñoo fekke sax fu ñuy naane sàngara rawatina yàlla dolli ci xéewalug sénégalais sénégalais même bu dul diine dafa bañ sàngara comme ni mu bañ a góor jigéen loolu nag ñu xam ni sàngara dafa xaraam waaw ndax man di moo xaraam déedéet léeg-léeg nga dajeeg ñu ñuy tuddeeg ay ustaas yu saay-saay soo waxee ñu ne la ah yàlla nee na bu leen dem di julli fekk da ngeen a mandi kon yàlla lam araamal mooy mandi gi waaye benn kaas ñaari kaas loolu dara nekku ci mbokk loolu amut lépp loo xam ne day màndal lépp moo xaram jamono bi yàlla di araamal sàngara la ëppoon ci li arab yi daan defere sàngara ci tàndarma la doonte ne ak raisin borom baa ngi koy wax ci suratu naxl wa min samarati naxiili wal anaab tattaxisuuna minhu sakaran wa rizqan xasana yéen ngi jël ci tàndaram yi ak raisin yi di ci defar sangara doonte ne la ko taxoon a jóg mooy rizqan xasana mooy ngeen lekk ko sans mu nekk ay ay sangara loolu la arab yi xamoon waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leeral ni lépp loo xam ne day muur xel sangara la loolu raisin lañ ko defaree tàndarma lañ ko defaree am na ay sangara yoo xam ne nii ñu demoon ci guerru Indochine dañ leen ko daan jox base ba ci ceeb la daan jóge waaye mbokk lu ñu mën a defaree sangara ba sangara la gannaaw ba li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax kulli muskulin xamr luy màndal sangara la loolu lañu dem ba mujj nit ñi découvrir loo xam ne boo ko tuxee mandi yàmbaalaam lu mën a doon ñu dem ba mujj découvrir loo xam ne boo ko naanee mandi muy pion yeeg yooyu xale yi jël am na ci yoo xam ne sax da nga koy fóon rek mandi ci ci façon drogue yi waaye loolu lépp jullit da ngay xam ne dafa xaraam niñ la ko waxee sànqit yow jullit maslaak sa xaritu bi yéeféer bu mu tax mu ko nga ñëw nga ne agrawul naa ci jël benn kaas rek même soo mandiwul déedéet naan gi ci boppam mooy li xaraam mandi nga wala mandiwoo léegi nag bi yàlla wàccee na sàngara xaraam na kenn ci jullit ñi daa fekkoon moom mi ngi yoroon damsaanam benn gurdam ba mu fees dell ak sàngara naa yow mi yàlla yónni kon deman xaaral ma dem jël sama sàngari bi jaay ko yahudiya yonent bi ne alayhi salaam ne ko déedéet ni yàlla araamale naan gi noonu la araamale njaay mi loolu it base ba mooy lépp loo xam ne nii islam da koo araamal du nangu ngay lekk njëgg ñu ngi noonu du nangu it nga maye ko looloo tax keroog bi aaye bi araamal sàngara wàcce dañ ne mbeddi madina yi dafa mel ne dafa taw ndax mboolem sàngara yi nekkoon ci biir madina yépp lañ génn tuurandoo ko ci mbedd mi te mbokk ni sénégalais yi bëggee ataaya noonu la naar yi bëgge woon sàngara waaye dañ koo bàyyi bañ xamee ne aram na dañ koo bàyyi te yàlla tax loolu kon mbokk mi ngi noonu suñuy jël beneen bind mu ne ونهى عن الخليطين من الأشربة إسلام دفاي تري ci loo xam ne dañ koo jaxase ci naan yi wa zalika an yuxlata inda al inbiyaz inda al intibaz mooy na doon dañ koo jaxase ci jamono dañ koy njar ngir denc ko wa inda shurb wala jamono dañ koy njar pour naan ko wa naha anil intibaasi fi diba fi fi duba tere na ñuy denc ay njar ci ay tax wal muzaffat ak loo xam ne nii dañ ko peinture ca bu jëkk dañ daan am ay genre peinture yi mel na goudron moom lañ daan peinture ndab yi nga xam ne boo ci defee ak naan day gaaw a fermenté gaaw a nekk sangara wa naha alayhi salaam an akli kulli zinab noonu it la yonente ba tere ñu lekk lépp loo xam ne daa am sell min assibaa'i ci njaa àll yi faddaate wa an akli luhumi alxumuri al ahliya araamal nañu lekk yàpp mbaam kër wa daxala madxalaha dana dugg dugg waayam luhumul xayli lii di yàpp fas wal bixaal mooy doomu fas ak mbaam ñu koy wax berkelle li qawlihi laahi tabaraka wa taala ngir kat yàlla ba muy tudd fas ya ak mbaam ya ak berkelle ya def ne li tarkabuha wa ziina ngir ngeen koy war ak di ko taaroo mi ngi noonu wala zakata fi shay'in minha kon amul lenn loo xam ne nii day war zakat di am ca loolee mi ngi noone illa fi lxumurul waxshiya zakat boobu mi ngi ci namm ku ñuy ku ñuy rendi di ko laabal pour lekk mi ngi noonu donte ne ni daganal nañu la nga xamee ne nii mooy mbaam yi nekk ci àll ba ñu koy tuddee zèbre yi nga xam ne nii dafa nekk ci àll bi loolee moom da ngay gis ne bokkul ci loolee mi ngi noonu kon mbokk fii day wax ne islam day tere ñu boole ñaari naan ci benn ndab donte ne mbokk loolu yàlla nattoon nañu ko lool ci canette yi tey li ñuy tuddee cocktail jël ñaari naan yu bokkul boole ci benn ndab mu ne lislaam day tere loolu mu joxe ci misaal ngi mel ni nga indi njarum tàndarma ak njarum raisin boole ci benn ndab te loolu it cosaan ba mooy nekkoon dafay gaaw a fermenté gaaw a doon luy màndal islaam it tere mbokk jullit ñuy lekk njaa àll yi lépp loo xam ne daa am sell di fàdd na doon sell na doon gaynde ya na doon segg ya mafiyaag yu deme noonu am ay sell di fàdd loolee da ngay gis kenn terewu ko ke dañ ko dañ ko araamal amma loo xam ne nii bukki ab sénégalais moom boo mënu ko comprendre waaye bukki moom bokkul ci yi nga xam ne dafa xaraam parce que dañ ne bukki amul ay sell bukki en général moom du nekk di fadd di rey lu ci bëri yi fadd la ñuy lekk loolu moo tax jamono saxaaba yi loolu daan nañ ko lekk doonte ni ne ab sénégalais loolu moom xalaatu ko sax mi ngi noonu kon lépp loo xam ne dafa am sell di attaqué di fadd loolu la ñuy tuddee zi naabin min siba loolee kenn du ko lekk naka noonu it bokk mbaam sëf wala fi da koy wax mbaam sëf mooy mbaam yi nekk ci kër gi kenn du ko lekk mu boole ci fas ak la nga xame ni nii mooy doomu fas ak mbaam boo ko fas suñu borom dene maa leen tàggatal mbaam yi fas yi ak berkel yi ngir ngeen war ko looloo tax lu mel ne mazhab Maalik ak borom xam-xam yi mel ne moom ñoom dañu ne loolu yàlla tudd ca lekk war la ca wax ak taaro mi ngi noonu war la ca wax ak taaro kon loolu kenn du ko lekk doonte ne nag am na yeneen tegtal yu ñëw ne lii di fas moom dagan naa lekk mi ngi noonu fas moom dagan naa lekk asma bint abi bakar nee na ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day rendi woon nañ benn fas ñun ñëpp ñu lekk ca loolu mi ngi noonu lenn ci mën ne mazhab shafi'i yi ñoom dañuy wax ni yàlla nee na ñu war ko ca taaroo ko ñu ne nag taar bi jëkk mooy lekk ba suur kon mel sa ko lekk kon kon loolee kon dañuy gis ni caamin yi moom ku ci mën a dem gis yàpp fasit araamul mutlaqan ci tegtal donte ne sénégalais moom ci sunu aada moom xamuñu ko te ji sañ tàm ba mun ak ciit daal di taxawal sa fasu naaru ngoo rendi ko yaakaar naa doo bëri ñu la añ de loolu moom ñun xamuñu ko te it li li ko gën a waral mooy téere yi ñu doon jàng fi yëpp mazhab Malik ñoom dañ ne dafa xaraam ci ñu lekk ko waaye nag ku yegg ci ay xat-xat yeggul ci tegtal buy wane ne dafa xaraam amma mbaam yaag berkele yaag yooyu moom dafa xaraam ndax mi ngi noonu fam cosaanoo loolu kon lay wax donte ne ni nee na wala ba'sa bi akli sibaa'i tayri dara nekkul ci ñu lekk lay fàddi ci picc ya wa kulli zi mixlabin minha ak lépp loo xam ne da ca am ay we we yu màgg mooy ay seer yoo xam ne dañ cay jàppe ca kon lii di eegil yi ak li nga xam ne nii mooy maf yi nga xam ne day fàdd jaxaay yi ak yooyu yëpp mu ni ci mazhab Maalik ñoom araamu lañ ko léeg-léeg nag nga dem ci yenn mazahib ñoom dañ koy boole ci benn xadis mooy kulli zi naabin mi ngi noonu ak kulli zi mixlab ne la yeneen bi ñaar yëpp la araamal mooy bépp picc bu yor ay wey yu mag yooyu di di fadd ak gaynde yooyu ñoo yemele mais bu dee mazhab Maalik ñoom araamalu ñu picc ak picc bi nu mu mën a mel dañ koy am na yu ñuy sib rek tan yaa yu demoon yëpp dañ ko sib waaye nag yeggul ci ñoom ñu araamal ko mi ngi noonu su ko defee mbokk loolu benn bind la ci li mu wax di complété listu li mu xaraamal ci lu jëkk après nag lay ubbil ay teggin yi nga xam ne dañ ko war a yoralante suñu biir su dee ne bala ñoo dugg ci teggin yooyu am na koo xam ne doon la laaj ci liñ jot a jàng ñu kii ko bala ñu koy fàtte comme ça ñu doog a dem ci yeneen teggin yi ci xaram yi sàngara yeeg njaal yeeg yooyu ndax ko ci amoon naam bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah ñaaw waaw waa ala kulli xaal fii moom day wax rek ci ne islam bañ na ñu boole ñaari boisson ci benn boisson almuhim jubluwaay ba lañ ci waxoon mooy dafay gaaw a nekk sàngara su ko defee ñaari boisson yu mu mën a doon yoo xam ne buñ ko njaree bàyyi ko fii ba yàggee nekk sàngara day dugg ci loolu amma nag loo xam ne am nañu expérience ci ni suñ ko njaroo nit lu mu fi yàgg yàgg du jamais du nekk sàngara loolee mënuñu ko caa boole mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam naam ala kulli xaal lépp loo xamee ne nii dafa génn la nga xam ne moo nekkoon cosaanam borom xam-xam yi dañuy wax ne jëfandikoo ko nekkul loo xam ne nii lu araam la bokk na ci vinaigre yooyu même bu doonte ne am na cosaanu alcool alcool boobu nekkul loo xam ne nii dafa nekk directement bu ca bu ca nekk soppeeku na ba nekk beneen façon matière loolu moo tax ba. te ji vinaigre boobu jàpp naa ko naanoo nit du manti loolee kon moo tax ba borom xam-xam yu bëri toléré yooyu nga xam ne dañ koo transformé ba mu génn la nga xamee ne nii moom mooy melokaanu cosaanam ba ca loolu bokk na ca vinaigre yooyu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw noon waaw noonu la loolu la moom jazakumullah xayran moom fasalu ahla zikr moom xam na ci dara dafa jaar ci liggéey boobu ala kulli xaal loolu mi ngi noonu bari na yuñ ci wax fekk ne tur ba moo fay nekk mais cosaan bañ koy defee transformé wu ne ba kenn ku ko fekkoon du xool mukk naan lii alcool la mi ngi noonu wallahu aalam naam naam waaleykum salaam bépp garab boo xam ne dafay am transu alcool it bokk na lu ca borom xam-xam yi di wax mooy tóoba bu dee dafa nekk ay taux yoo xam ne ni taux yi faible la loolee dañ ko mën a dañ koy tolérer su dee ne amoo équivalent boo xamee ne nii dana mën a taxaw place am su dee nag am nga lu ko mën a remplacer loo xam ne amul benn transu alcool yow jëriñ loolu ngay jël bu dul looloo du yegg ci loolu dañ koo xaraamal ndax naan garab bi du tax mu màndal la mi ngi mel ne rek parfum yi parfum yi ci bëri day am alcool ay soixante-dix degré ay nangam nangam loolee la nga xam ne moo cay nekk la gën moo ñu bàyyi ko mi ngi noonu waaye da ngay gis ne borom xam-xam yi dañuy wax ne taux boobee ca nekk parfum ba nga koy parfum yi loolee nekkul loo xam ne ni lu lay lu lay lu lay mandal la loolee kenn du ko boole ci la nga xam ne nii mooy yi ñuy tere mu am différence ak li ñu doon jàng sànq li ñu doon jàng sànq mooy loo xam ne moom sàngara la buy màndil ak lu mu fu mu mën a dérivé moom moom bokk naa ne moom da ngay màndi loolu lañ ne naan ci lu tuuti ak naan ci lu bëri bokkul bokkul nag loo xam ne dañ ko jël transformé bokkoo boole ko ak leneen loo xam ne kenn du ko gis ba xam ne bay wax naan lii sàngara la wala trasu sàngara bu ci nekk yooyee da ngay gis ne yow jullit boo ko xamee ca nga am leneen loolee mooy la gën nga bàyyi ko. amma nag du yegg ci ñu ne dañ koo xaraamal ngir transformation ba nga xamee ne nii alcool ba transformé wu na ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ah yooyu yëpp dañ ko sib la nga xam ne nii moom mooy xasharatul ard borom xam-xam yi dañ daan wax naan loolu du nekkul nekk julit ñi kaña yeeg jaan yeeg njaa àll yeeg yooyu yëpp borom xam-xam yi dañ ne suñu borom mu ne wa harrama aleykum alxabais da leen a da leen a araamal yoo xam ne nii dafa sobewu su ko defee yooyu moom yéggul ci ñu ne dafa xaraam waaye dafa nekkul loo xam ne nii lu julit di war a jël di ko def ak lekkam lu dul xiif yóbbu ko ca bu ko lu dul bu leen xiif bu ko ci yóbbul daal jullit dafa war a moytu lu ñuy tudde xasaratul ard mooy yooyu nga xam ne nii en général nit ki da koy seexloo lekk loolee moom nekkul la nga xam ne mooy lekk jullit mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam soo amee dëkkandoo bu jaay mes ci marché nit kii amuñoo ci la laajte ku jaay mes boo ne xamoo ko te sa dëkkandoo bi mu ko jaay est-ce que loolu am na ci dara
waaw dafa mel ni kon question d'ars bi moom jeex na waaw waaw waaw waaw ala kulli xaal toujours li ñuy wax rek mooy mu ñu ñuy def dars ci fiq bi liñ jot a jàng la ñuy bëgg nit ñi posé ci question suñ paree nag ba pare bu amee question générale ñu daal di koy posé naam ala kulli xaal ki nga xam ne dafay ñëw di la laaj lii di place boo xamee ne nii dañ fay jaay loo lu lu lu baaxul loolu la gën du la war sax nga ne ko ah sëñ bi man kat mees moom comme ñun li lislaam da koo araamal loolu man xawma ci dara mi ngi noonu xamal ko ne ne lii lislaam da koo araamal loole bu la amee yaqin ci ne kii daa ñëw pour jëndi si mees loolu des fois nag mu am problème ci lu mel ne lu mel ne baar benn waaye mën na ñëw dajeeg yow mais baar teel moom fan la féete fii fekk ne moom la koy yëkkati du ca baar ba dafay gindeeku ngir tegtal buñ ko jox ca loolee amaa nag bu la wóoree ni wala nga am sikk sàkk ne kii ca baar ba dafay dem pour mandi ku mel noonu waroo koo gindi di ko tegtal ci loolu mi ngi noonu la nga ko war a xaa ñun ay jurit lañu ñun baar moom du suñu mbir mi ngi noonu mi wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw waaw na am dagan na ci ñu boole fas ak mbaam mu jur doom loole lañ koy tudde bax la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam buuru Égypte bi mayoon na ko bax la bu mu yoroon ñu tudde woon ko dool dool ala kulli xaal lu dagan la ñu boole fas ak mbaam ba ñu am doom en général moom ci boppam du am doom waaye nag day dëgër mooy gën a dàq liggéey fas wala dàq liggéey mbaam day nekk ci diggante fas ak mbaam noonu mais en général day dëgër loolu lu dagan la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam kon ñu jël beneen bind mu ni wa min al faraidi birrul walidayni bokk ni ci farate yi l'islam digle mooy ñu def njekk jëm ca wayjur ya wa in kaana fasiqayni doonte ne dañoo nekk ay kaccoor ay def ko ci bakkaar yu mag wa in kaana mushrikayni doonte ne dañoo nekk ay bokkaalekat falyaqul lahuma qawlan layyina nay wax ak ñoom wax yu nooy wal yuashiruhuma bil ma'ruf te nay nekk ak ñoom ci njekk wala yutihuma fi ma'siya te bu mu leen topp ca la nga xam ne mooy bakkaar ya kama qaala allahu subhanahu wa taala comme na mu ko waxee yàlla misal ca kawe wa alal mumini war na ci julitit an yastaxfira li abawayhi muy ñaanal yàlla jéggal ay way juram al muminayni yoo xam ne dañoo gëm wa alayhi mawalaatu al muminin wareef la ci moom mu féetewoo ak julit ñi wa nasihatu lahum mu laaye leen biirit wala yabluhu ahadun xaqiqatal iman du jot kenn nag la nga xam ne mooy dëggi-dëggi ngëm xatta yuhibba li axiihi almumin lu dul day bëggal mbokk julitam maa yuhibbu li nafsi lam bëggal bakkanu boppam kazalika ruwiya ani an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ ko soloo jële ca yonente ba wa alayhi an yasila rahima wareef la ci julitit muy jokk ay mbokkam mi ngi noonu mbokk kon day wax ne bokk na ci li yàlla farataal mooy yow jullit ngay laaye biir say way jur def ci ñoom albir bir kaddu la goo xam ni day ëmb lépp loo xam ni lu jekk la ci ay jëf ak i wax ak i taxawaay lépp da koy ëmb muy bir mooy nga def njekk jëm ci ñoom même bu dee dañoo nekk faasiq baay bi day naan sangara day njaaloo baay bi day carte yow loolu doom bu mu tee nga def njëkk jëm ci moom allahuma même bu doon dañoo nekk ay yéeféer ay chrétien la ñoom ay mushrikuuna la ñoom ay athée la ñoom maadaama kii bàyyi la ak yaay yow defal njëkk jëm ci moom heure bay wax ak ñoom tànnal kàddu yi gën a rafet nga wax leen ko nekkal ak ñoom ci ma'ruf te mooy jamono jooju ngay dund ak ñoom lu doom yoral baay ak yaay ci njëkk defal ko sa waajur yooyu baax na ñoom bon nañu julit la ñoom yéeféer lañu waaye nag bu leen topp mukk buñ la digalee bakkaar heure buñ la woo ci seen diine heure buñ la def loolu lislaam araamal ngal la waay bu leen topp ci loolu dag leen nga dégg ay waxkat ñu nekk ci rajo yi di wax nan sa baay bu la yónnee nga jëndal ko sàngara sax da nga ko war a jëndal indil ko eh déet boo ko jëlit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo wax ni kenn du topp ku ñu bind fekk yaa ngi mooy ko bind kon lépp loo xamee ni nii sa diine araamalu ko loolu lañ naan la topp leen ca la diine daganal loolu lañ naan defal leen ko su ko defee kon loolu moom mooy wareef bi wareef la it ngay ñaan yàlla jéggal leen même bu doon ay yéeféer ñuy dund ak yow ñaanal yàlla jéggal leen yàlla jubal leen amma nag bu ñu deeyee julit amul droit ñaan yàlla jéggal yéeféer da doon sa ndey la wala sa baay la julit amul droit loolu amma bu doon ay julit lañu su boobaa it njëkk ba du dogg benn waay bi mu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko ah samay waajur dañoo faatu léegi lan laa leen deseel mu ne ko nga leen di jéggalul seen bakkaar di leen ñaanal yàlla jokk mbokk gi nga xam ne ñoo tax nga bokk ak ñoom jokk seeni wëllëre ya ñu amoon te digg yi ñu fi bàyyi woon nga matal ko loole kon waajur dañuy def ci moom njëkk bi muy dund ak bi mu faatoo woon la gannaaw yépp mu ne it jullit day féete woog mbokkam jullitam almuwalaat mooy loo mën ci njëkk nga defal ko ko waaye loo mënit ci nasiixa nga defal ko ko donte ne loolu moo gën a tumuranke suñ jamono yi tey mooy heure boo gisee gàttañ lu gëm gàttañ lu ci wàllu diini góor ak jigéen nga woo ko laayu ko biir ayoo fatcaam vraiment day ko baax nga waaye day vraiment soo dul muuru day ah moom la la yàlla digal de ah yow diw man day gis naa la doo ñëw ci jàkk ji wàllu àdduna it lépp loo xam ne nii jàpp nga ni lii boo ko ci laayiwoon biir dana ko jëriñ nga defal ko ko rawatina bu dee dafa ñëw di la laaj conseil mu ne xam leen ne nag jullit du am dëgg-dëggi ngëm lu dul day bëggal mbokk jullitam lim bëggal boppam mbokk ngëm ñaar la dafa am ngëm général ak ngëm dëgg benn waay dafa ñëw ci xasanul basri ne ko waaw yow imam Hassan ndax yow gëm nga mu ne ko ah ban ngëm ngay wax bu dee ne day ndax may laaj ndax gëm naa yàlla ak i malaakaam ak i téeréem ak i yowmal qiyaama ak i dogalam ak i yeneen tam loolu de gëm naa ko waaye nag bu dee da nga may laaj lu mel ne la yàlla wax ci suratul anfal innama almuminuna allazina ida zukira allah wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhu imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina kaza wa kaza mooy melokaanu dëgg-dëgg ngëm googu loolu day lay ñaan yàlla xuumagu ma ndax yegg naa ci am déet waaye mbokk julit xam ngeen ne amul kenn ci ñun commencé ci man mi wax ak yéen ku mën a dogu ni li ma bëggal sama bopp rek laa bëggal mboolem mi jullit loolee mbokk ab daraja la boo xamee ni yàlla koy jagleel ku ko neex yàlla na yàlla jagleel ñu ko waaye loolu it jullit da ko war a fexeel boppam kan mooy jullit ndax mooy ñi nga bokkal ay frère ay dëkkandoo ay jàkk déedéet chinois la portugais la ku mu mën a doon maadaama xam nga ne jullit la rek li nga yéene sa bopp rek nga ko yéene loolu it mooy wane ne boo ko gisee mi ngi ci coono yaa ngi denc loo soxlaagul da nga ko ci war a jàppale soo ko gisee mi ngi nekk ci ay xat-xat da nga ci war a jàppale ndax li nga bëgg sa bopp lan nga koy bëggal loolu nag mbokk mooy xaqiqatul iman mooy dëgg-dëggi ngëm boo xamee ne nii loolu mooy la nga xam ne mooy la jafe yegg mu ne kon loolu ngay war a def yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ko digle mi ngi lan noonu la ko digle doonte ni li mu wax ruuya waru ko woon wax ndax ruuya mooy wax nañu loolu ñu ngi koy wax ci xadis yoo xam ne nii wérul waaye ñëw na ci xadis Buxaari yi solo yonent bi alayhi salaam mu ne nit ki du gëm mukk lu dul ni da nga bëggal sa mbokk yooyu li nga bëggal sa bopp laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsi mu ne it noonu it la jullit war a xam ni sa borom yàlla dala booleeg say mbokk mbokk yooyu da nga leen war a jokk jokk gi nag mooy lépp loo xam ne day rafetal seen diggante ci alal ci seeti ci ci ci ci laaye biir ci lu mën a doon esilu rahimahu mi ngi noonu suñu dee jël beneen benn ba tey mu ne wa min xaqi lmumini ala almumin an yusallima alayhi ida laqiya bokk na ci àq bu julit yoral mbokk julitam na ko nuyu heure bu dajeeg moom wa yaudahu ida marida na ko seeti heure bu feebare wa shammitahu ida atasa na ko wax yarhamukallah heure heure boo xamee ni nii dafa tissoori mooy ndokkeel ko ci loolu wa yashhada janazata teewe ab néewam su dee yëg ñe ne faatu na ida maata wa yaxfazuhu ida gaaba mu wattu ko heure boo xam ne nekku fa fii sirri wal alaniya ci lu nëbb ak lu feeñ wala yaj wala yahjura axaahu fawqa salaasi layaalin doo gàddaay sa mbokk julit lu ëpp ñetti guddi wasalaamu yuxrijuhu min alhijraan amma nuyu ba nga koy nuyu loolu dana ko génni ca la nga xamee ne ni mooy gàddaay ga nga ko gàddaayoon mi ngi noonu wala yanbaghi lahu an yatruka kalaamuhu ba'da salaam yeyu lit gannaaw ba mu ko nuyoo mu bàyyi ba ñu wax ak moom wal mi ngi noonu gannaaw ba mu ko nuyoo mbokk kon day wax rek loo xam ne ñëw na ci xadis yi siiw àq yi julit yoral mbokk julitam la ca jiitu boo dajeeg moom nuyu ko loolooy àq la boo xam ne da nga ko ko yoral soo ko nuyuwul loolee gàddul nga ko àq heure boo xamee ne yëngu ne feebar na nga sol saw dàll dem seeti ko loolu ak xam la ci moom bépp jullit bu tëdd feebar mbokk jullitam dem seeti ko mi ngi noonu soo toogee ak moom mu daal di tissoo di ak la ci yow nga wax ko yarhamkallah waaye bi charte moom mu wax alhamdulillah wax alhamdulillah mi ngi noonu. kenn ci borom xam-xam yi dafa am benn buur bu ko woo pour tester ko bëggoon ko namee postu gouverneur yooyu bi mu ñëwee ba toog ak buur bi buur bi daal na question mi ngi noonu daal di noppi waa ji waxu ko dara mu ne ko waaw lu tax yow bi ma tisoolee waxoo ma yarhamkallah mu ne ko bi nga tisoolee waxoo alhamdulillah mu ne ko mais man wax naa alhamdulilah ci sama bakkan mu ne man it wax naa yarhamukum laa ci sama bakkan yaa ngi dégg waaw loolu boobu mi nga doon test maandu teem xam ngeen mbokk ku ñuy nomee nga toog ci kanamu buur lu ci bëri da nga koy ragal mais mu wane ne kii kon ku ko jox responsabilité na ko gàddu mi benn loolu it kon dañ ciy dégg it waa ji nga xam ne dafa tiisoo li waxul alhamdulilah boo koy wax yarhamukallah it bu mu ko dégg man nga ko wax sa bakkan yarhamukallah waaye moom bu mu ko dégg waaye gannaaw ba it boo ko ba ne nga laayu ko biir mais nit ki balaa yooyu ñu ne ko yarhamukallah day fekk ne bi mu tissoo lay wax ne alhamdulillah mi ngi noonu heure boo yëgee ne mbokk julit faatu na bu ngant amul demal fekkee teewee teewee néew ba teewee fañ koy jullee mi ngi noonu bu la jot ga maye nga yëg caarmeel yi xëyrun boo ko mënul it te fañ koy jullee moom gannaaw ba it sa mbokku jullit da nga koo war a wattu na doon mi ngi fi wala nekku fi da ngaa war a wattu deram bu fi nekkul nga moytu di ko jëw mi ngi noonu daganul ci jullit mu mere mbokku jullitam lu ëpp ñetti guddi amma bis bu ko rombi nuyul ko loolee kenn doo ko te wax gàddaay doo ko gàddaay lu ëpp ñetti fan waaye boo ko nuyee moom dañ naan gàddaay gi moom jeex na su ko defee nit ki dañ naan la loo ko mere mere mere mere soo ko rombee rek ne ko asalaamaaleykum nga jàll amma nag nekkul it jëne wax naa ko asalaamaaleykum dootuma wax ak moom bokk na la gën del wax ak moom waaye quand même maadaama wax nga ko asalaamaaleykum rek bakkaaru gàddaay ba moom teggeeku na mu ngi noonu mu des njëkk ba ngay am ci moom ala kulli xaal ñu jël suñu bind bu mujj mu ne wal hijraanul jaiz gàddaay nag dana doon luy dagan hijraanu zi gàddaay bay dagan hijraanu zil bidaa mooy koo xam ne dafa doon nitug bidaa aw mutajahirin bil kabair wala kay feeñal ay bakkaaram nëbbu ko laa yasilu ila uqubatihi boo xamee ni nii yeggul ci ñu man koo mbugal wala yaqduru ala mawizatihi ci amul kattan ci man koo xópp aw laa yaqbaluha wala bu ko waaree it du ko nangu mi ngi noonu wala xiibata fi fi haazayni dara nekkul ci ñu jëw ñooñu fi zikri xaalihima ci wax seen mbir ma wala fii ma yushaawaru fiihi jëwit nekkul ci loo xam ne nit daa ñëw di sàkku di diisoog yow li nikaax ngir soxna bu mu bëgg a takk wala ku mu bëgg a may jabar aw muxaalata wala ku mu bëgg a associer ci wàllum liggéey wa naxwihi ak lu mel noonu wala fii tajriix shahid dara nekkul it ci jam ab aji seede wa naxwihi ak lu mel noonee mi ngi noonu kon mbokk day wax fii rek ni bokk na ci loo xam ne nii dañ leen war a gàddaay muy koo xam ne day feeñal biddaa ci biir lislaam di woote ci biddaam boobu ku mel noonu warees na nit ñi wan ko gannaaw ba ba muy bàyyi biddaa boobi ki nga xam ni day feeñal ay bakkaaram yu mag nëbbuwu ko làquwu ci rusu ko ku mel noonu it dañ ko war a won gannaaw su dee amuñu kattan man koo mbugal amuñu kattan man koo waar wala buñ ko waaree du jëriñ mu ne ñaar ñu mel nii it jëw leen dara ne wucc di wax ak sa njaboot wala koo mën a leeral moytu leen diw pas-pas bi muy yor di ci woote baaxul wala diw li muy nekkee ci bakkaar yu mag baaxul ñu mel noonu daggan nañu jëw leen ngir moytu loo leen nit ñi mu waxit ne daggan na ci jëw it ki ñëw di la laaj ci soxna sum bëggoon a takk wala ki ñëw di la laaj ci ki ñëw di ko ñaan doomam la nga xam ci moom ci lu bon soo ko waxee it loolee dara newu ci mi ngi noonu loolee dara newu ci te loolu yonent bi alayhi salaam jëfe woon na ko ak Fatima bintu Xays gannaaw ba it waa ji ñëw ne laa man de dama bëggoon jël diw mu liggéeyal ma wala diw day danañu associé lépp loo xam ci moom ci lu bon it loo xam ne day yàqub liggéey soo ko xamee da nga koy wax waa ji ngir avertir ko loolee tamit képp koo xamee ne nii dañ koo bëggoon a jël pour mu nekk seede ca nga xam ci moom ak ñàkk maandu it ku mel noonu da nga laa déedéet diw doyul seede ndax kooku maanduwul wax ja nga koy wax loolee da ngay gis ne nekkul ci loo xam ne nii lislaam da koy doon loo xam ne nii da koy da da koy tereel la ngiree ñu tëje ko rek bind bu gàtt bi mu ne wa min makarim al axlaaq bokk na la gën a tëdd ci jukko an taafuwa aman zalamaka nga baal ki la tooñ wa tu'tiya man xaramaka nga jox ki la xañ wa tasila man qataaka ca nga jokk ki la dogg wax na la ay mbaax yu bëri mu ne nag waaye xamal ne bokk na ci yi gën a kawe ci jukko yu tedd mooy nit ki tooñ la nga baal ko lu waral loolu mooy ki la tooñ bu la neexee tooñ ko te moo ci benn bàkkaar nit ka nga xamee ni nii sa aq au lieu mu jox la ko dala koo xañ ko mel noonu boo ko xañoon aq mit islam du la ci wax dara waaye yow nga wëlbati ko jox ko waa ji nga xam ne nii aq ba mu yoroon ci sa digganteeg moom da nga xëy xëy nu ko tipp dagg ci mbokk ga loolee da ngay gis ni soo ko daggoon it dañ naan moom moo ko jëkke loolee duñ la ko toppee waaye xamal ne lay jukka bu rafet dëgg mooy baal ka la tooñ jox ka la xañ jokk ña nga xam ne ni dañu laa dagg loolee mbokk da ngay gis ne ci jukko yi gën a kawe la bokk kon mbokk loolu mooy bind bi yàlla dogaloon tey incha allah su bilal noddee ba pare dana des quelques minutes ñu jagleel ko mbool yeneen question yi wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wala kulli xaal lii problème ci ci bida en général borom bida du xam ne moom la muy def bida la loolu moom mooy problème bi gën a rëy ci bida loolu tax même moom mu naan day fekk ne dañ koy laayee biir su dee buñ ko laayee biir du nangu te mooy képp koo xam ne dañ ko gis muy def biddaa it wareef la ñu xamal ko ne ko ah yow de lii ngay def dafa safaanoo ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu amma bu dee dafa continuer sax ci biddaa boobu di woote ci biddaa boobu ku mel noonu la ñuy wax ne moom la ñuy tudde nitug biddaa ki ñu war a moytu war koo moytuloo la nga xamee ni ni mooy nit ñi ndax bokk ni li ñu naan seytaan li ko gënal biddaa moo ko gënal bàkkaar ndax nit ki nekk ci bàkkaar xam ne ni mi ngi ci bàkkaar moom mi ngi ñaan yàlla yàlla baal ko bu mu tuub ci amaa ñu teg biddaa nag day ñaan yàlla rey ko ci ndax en général du ñu xam ndax loolu biddaa la am déet loolu moo tax ba la ci jiitu mooy ñu laajee leen ci biir amma nag koo xam ne dañ koo laajee biir mu fectërlu su boobaa moom ngay doog a am atte bi wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam ndax day dugg ci na na na levée de corps islam xamu ko islam xamu luy levée de corps wolof it xamu ko xam ko xam niñ koy waxee ci wolof mu xamuñu ko levée de corps tubaab bi ñu ko fi indil ala kulli xaal islam li mu xam mooy li yonent bi alayhi salaam wax ku fekkee fu ñuy jullee ab jullit da nga am montagne bu toll ni Uhud ku fekkee fu ñu koy suuli da nga am montagne bu toll ni Uhud su ko defee yow jullit daal heure boo xamee ne nee nañ la sa mbokk jullit faatu na fii ñu ngi koy jullee su dee amoo benn ngant xamal ne war ngaa dem teewee jullee ga loolee moom mooy mbir bi su dee am nga ngant nag loolee fardul kifaaya la mi ngi noonu su doon dañoo dem ba sax ñëpp am ngant du tee war na am ñu sacrifice wu taxawu ko bu dul loolu ñoom ñëpp dëkk bépp dañu am bàkkaar mais bu dee am na ñu doy ñu ñu ñu ñu ko taxawu te yow nga am ngant islam du la ko toppee loolu dal muy mbir bi amma levée du corps loolu xanaa ko am ab chrétien boo xam ne mun a fekk fañ koy jullee nga dem levée du corps waaye levée du corps moom islam xamu ko wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam naam ala kulli xaal kon bokk ah naam bismillah naam rijis sobe la doonte ne ne mi ngi gën a jëm ci xol najasu it da ngay gis ni najaasa dees na ko wax sobe buy taq doomu aadama waaye it am na ñoo xam ne seen xol mooy sobewu comme li borom bi di wax naan rek xol bu gumba laa taamal absar lakin taamal xulub su ko defee najaasa mooy sobe yi nga xam ne nii day boo ko taqee si da nga ko war a sob waaye suñu borom mu ne innamal mushrikuuna najasun gannaaw ba borom bi di wax ne ci yéeféer yi faarid anhum innahum rijisun kon loolu lépp sobe la boo xamee ne nii dafay jeexital ci xolu ña nga xamee ni yàlla laabalul seen xol ñaari baat la yoo xam ne nii sorewuñu lépp daal mi ngi firi rek xol bu bon wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam ala kulli xaal kon bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatulah. naam. dañoo nodd ba pare. imaam bi ñëw rek kàbbar julli waaw su imaam bi ñëwee ba kàbbar julli foog ne dañoo liqaam julli gi dañ koy continuer dañuy continuer julli gi loolee da ngay gis ne amul leen luñ cay def du lu ñuy sujuutal du julli gu ñuy reprendre nodd sunna la boo xam ne nii dañ koy def avant julli waaye moog julli gi bokkuñu dara su ko defee waa ji nga xam ne da doon julli fàtte liqaam fàtte na liqaam romb na romb na jeex na yàqul yàqul ci dara amaa nag bu doon imaam dafa tourné ngeen gis ko fi ngi waaj a kàbbar nga ne ko subhanallah subhanallah balaa kàbbar ñu ñu ñu ñu wax nañ liqaam waaye bu xasee ba indi takbiratul ihram moom su boobaa kenn du dagg julli gi ngir dabu ji la nga xam ne ay sunna la gis ngeen sax julli gi boo xasee di julloon ñaari rakka au lieu nga toog nga jóg taxaw bu ñu la waxee subhanallah it da ngay continuer parce que dugg nga ci farata doo ko bàyyi delluwaat ci sunna kon daal mi ngi noonu amul benn rapport boo xam ne nii day tax ñu mën a changer julli gi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam ala kulli xaal kon mbokk ñu ñu doyloo loolu ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nañu yàlla xamal suñu diini wërsëgal ñu dund ko tam nangul ñu ko ñi ngi jégalu it te dafa am ay mbokk yu ma seet si fii léegi seen benn doom dafa nekk fii ci centre transfusion sanguine yàlla da ko nattoo deret ji du té yaram bi mënu koo téye xaw mënu ko tubaab yi tuddee feebar yooyu alors affaire bi nag dépassé leen ba médecin yi ne leen kii il faut ñu évacuer ko ah ñu am ay ñenn jàkk yu ñu yaakaar demoon fa ñu amoon di yaakaar ci waa jàkka ji su ko defee maa ngi jégalu Bilal bu ñu paree lu ci waay am rek ñu jox ko Bilal fii ak suba it képp koo xam ne am na ci dara incha allah dan maa ngi seen coordonnées ngir jokkoo ak ñoom yal na yàlla saafara ko saafara bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain